Uh... xibaar bu neex ba yegsi na xéewal gu màgg ñëw na Touba Argentine voyage àndandoo bi wóor ci képp ku war a voyage te soxla billet avion taamu leen Touba Argentine voyage ci seen bépp voyage ci ay billet yu yomb te wóor rawatina yéen ñi nekk Brésil Argentine ak fépp ci Amérique latine Touba Argentine voyage da leen di gunge ci seeni tukki ci ni mu ware formulaire bu ngeen war a remplir ñu defal leen ko yu ci mel ne déclaration xuraada test Covid wala bépp papier administratif bu tukki di laaj voyage ci àdduna bi billet yi jàppandi nañu ca tuuba Argentine voyage lépp nag ci noflaay gu mat sëkk fu ngeen nekk ci biir Argentine wala Brésil soxla billet d'avion jarul ngeen di déplacé wu mën nañ leen a jox suñuy compte Touba Argentine voyage woote leen ci plus 549 223 693 76 42 plus 549 223 693 76 49 Touba Argentine voyage noflaay njàppandal ak xéewal ci seen bépp voyage أربعة مكان